أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لقم لساني واحلل منه العقد واجعله شاكرا وذاكرا ابدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا بقي السلام عليكم ورحمه الله ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di bëgg ñëw di àndaat ak yéen ci bind yi nga xam ne moom lañ baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu ne di ko jële ci téere sëriñ bi radiyallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde nahju xadail xaaj di ci ànd ak yéen di ci jàngalante waaye di ci jariñante kon bind yooyu moom lañ bëgg wéyal ba tey rek nga xam ne keroog mi ngi tolloon fi nga xam ne ci la sëriñ bi di yaxal di wax ne saa boo xamee ne dégg nga koo xam ne am na aajo na nga fexee fajal ko aajam jooje rawatina nag bu fekkee ne ku la mag ne ku la mag moom bu mu sàkku ci yow dara lu dul nga defal ko ko waaye na nga fexe ba sàmmoonte ak teggiin tamit ci bañ a wax kenn nit wax dara nga koy weddi wala nga naa ko li nga wax amul na ngay sàmmoonte ak teggiin yooyu yëpp na saa boo xamee ni nit wax na loo xam ne xamoo ko wala wóoru la ndax am na wala amul nanga ko ko dëggalal rek soo demee ba xam ne mënul koo dëggal nag nga noppi soo demee ba xam ne li mu wax ak ñi nga ko jàppe bokkut bul ko wax mukk ne ko li nga wax amul waaye nee ko man de nii laa jàppe woon wala nee laa jàppe woon ak baat yu mel noonu nga xam ne soo ko waxee nit ki doonte ne dëppoo leen ci ab gis-gis sax waaye du tax mu mer ndax weddiwoo ay waxam waaye da nga indi say wax rek teg ko kon teggin yooyu nit ki daf ko war a sàmm bu baax a baax a baax kon suñu bindu keroog ci foofu la ñu taxawoon ñu continuer ba tey rek di wax ne waaw wi di na nga tàmmal lisaana aw làmmeñ wala saw làmmeñ xaw xawlal xayri wax aw yiw tafuz ne na kon di nga tuufu bihi ci moom watuk fa te deef na la tegal kulla dayri wépp lor ne la na nga tàmmal saw làmmiñ wax ju baax na nga tàmmal saw làmmiñ wax aw yiw ndax wax aw yiw kat boo ko tàmmalee saw làmmiñ ngañaay rek nga ci mën a jël jële tanaw rek nga ci mën a jële waaye lépp loo xam ne moo di aw lor def na la ko fegal nit ki war naa fexey ba tàmmal aw làmmeñam wax ju baax wax ju baax nag mbokk yi mën naa limu lool di ci jàng alxuraan di ko ci tudd ci la bokk di ci jàng ay xasaayit di ko ci tudd ci la bokk di ci def ay salawaatu ala nabi ci la bokk di ci def ay istixfaar astaxfirullah ci la bokk di ci def ay laa ilaha illallah ci la bokk yooyu yëpp nga xam ne soo koy wax aw yiw nga ci jële yooyu yëpp ci la bokk kon na nga fexe ba tàmmal saw làmmiñ yu mel noonu fexeyel ba boo gisee sax lu la yéem bul ca wax loo xam ne boo paree danga koy réccu waaye na nga fexe ba tudd yàlla waaye bu ca wax loo xam ne boo paree da nga cay gàccew wala da nga cay rus boo gisee lu la yéem man nga tudd yàlla waaye bu ca wax loo xam ne boo pare gàcce mën na la caa toppe kon aw làmmiñ daal mbokk yi dañ ko war a tàmmal lu baax dañ ko war a tàmmal lu baax di ko ci wax ndax wax nañ ne li nga xam ne mooy moom moom la mag ñu baax ñi daan def ak saxaaba yi daanañ ko moytandiku bu baax moom làmmiñ ngir danger boo xam ne danger na ko ndax wolof yi dañuy wax ne làmmiñ wala kàddu bal la saa bu génnee daa tàkk te mënoo koo jotiwaat kon fexeyal ba saa bu saw làmmiñ di wax genn wax na doon loo xam ne boo paree doo ko réccu mu ne li xawli sayyidil wara ngir waxi sangu bindee fi yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne man kaana képp koo xam ne nekk nga xadis boobu dina ñëw ci saraa bi salla yàlla na doole xiiwal alayhi ki moom rabbuhu boroomam idmaanan ci ak sax mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne moom mooy sangut mbindeef yi dafa wax ne man kaana ku nekk xadis bi dina ñëw léegi yàlla na suñu boroom doole xiiwal ci moom ak mucc waaye yàlla na suñu boroom bi julli ci moom ak sëlmal ci lu sax nee na lan la wax mu ne man kaana képp koo xam ne nekk nga yuminu di gëm billahi ci yàlla wal yawmil axir ak bis pénc ne bis bu mujj ba fal yaqul na ngay wax xayran aw yiw aw li yasmut te noppi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm ne bis pénc dina am gëm ne ëllëg suñu borom dana dekkal ñëpp taxawal leen ca bisu taxawaay ba nee na na ngay wax lu baax te noppi na ngay wax lu baax te noppi soo waxee lu baax ba pare na nga noppi waaye bu ca teg leneen mu ne yaan li mu jublu anna min al adabil xasanati naka bokk na ci teggiin ya di aji rafet antu diima ngay saxal xadaa a xaajati man huwa akbaru faj aajo yi ka nga xam ne moo la féete mag isa samiatahu dem dégg nga ko dina bokk na ci rafeti teggiin ngay saxal di faj aajo yi képp koo xam ne daf laa féete mag saa boo déggee muy sàkku aajo ngir ku ko fajal wala muy sàkk ku mu yónni wala muy sàkk ku ko jàppale dara yooyu yëpp na nga fexey ba fajal ko ko ndax loolu dafa bokk ci ay teggiin dafa bokk ci ay rafeti jëflante moo tax mu ne isa sami'tahu ndéem dégg nga ko yatlubuhu mu koy sàkku kaana wala yatluba muy sàkku man ka nga xam ne yursilu danoy ko yónni ci xaaja duñ ci aajo dana wala sax nga dégg ko muy sàkku koo xam ne daf koy yónni ci aajo dafa am aajo pour yónnee fenn nga xam ne lii mu yónnee man nga ko doxali na nga fexey nga doxali ko na nga fexey nga demal ko ca aajo jooje wa min ha bokk na ca ba tey ci rafeti teggiin an laa yatlu ba mu bañ a sàkku mit ka ci yow ahadun kenn shay an dara illa faaltahu ndare nga defal ko ko ñoo ngi jéggulu nee na bokk na ci teggi ni rafet ba tey tamit fexeyal ba bu kenn sàkk ci yow dara lenn loo xam ne man nga ko ndare nga defal ko ko maanaam lu dul nga defal ko ko lépp lu waay sàkk ci yow daal te nga xam ne lii man nga koo defal nee na bul ko bàyyi muy yaa yaakaaram di yàq ko waaye na nga fexe nga fajal ko aajo jooje wa an la taqula ak nga bañ a wax li ahadin ñeel kenn kazzabta wax nga lu du dëgg wala xulta xayral xaqi wala wax nga lu amul wala kalimatan du caage ne baat tus xituhu bopp dana ko merloo dana bul wax kenn ne ko wax nga lu dëgg wala wax nga lu amut wala benn baat boo xam ne daf koy merloo ndax loolu dafa dàqoonte ak te ay teggin moo tax ne na bul ko wax kenn wa in kaana doonte dafa nekk asxara di gën a ndawe maanaam di féete ndaw min ka ci yow wa in qaala su fekkee ne dafa wax maa la nga xam ne lam taalam xamoo ko fa saddiqhu na nga ko dëggal fii te moom ne na ki nga xam ne moo wax su fekkee ne daf laa féete ndaw sax bu mu tax nga ne ko li nga wax xamul waaye bu mu tax nga ñàkkal ko kersa waaye bu mu tax nga rusloo ko waaye na nga ko wax rek ne man mii kat wax dëgg yàlla lii dama koo xamut wala nangam ak nangam laa ko jàppe woon waaye bu mu wax mukk nga ne ko li nga wax amut su fekkee ne dafa wax loo xam ne nag xamoo ci dara yow nanga ko ko dëggalal soo ko mënee dëggal su fekkee ne mënoo koo dëggal nag nga noppi te tee saw làmmiñ moo tax mu ne fa xul na nga wax lastu kazalika kuntu ataqidu maanaam jàppewu mu woon noonu fa xul lastu kazalika kuntu ataqidu na nga wax ne ko jàppewu mu woon ne mbir mi de nii la demee man de nee laa façon ne ni la demee waaye jàppewu mu woon ne nii la demee awalan ci lu jiitu aw aw aw laa axlam wala xawma zalika loolu wa naxu haza ak yu mel ni yooyu min al ibarati ci ay baat alxasanati yadi aji rafet ne na kon na nga fexey ne ko man di wax dëgg yàlla li jàppe mu ko woon nii nii laa jàppe woon wax ko ci ay kàddu ay baat yoo xam ne baat yu rafet lay doon te doo ko weddi doo ko merloo waaye doo ko ne li nga wax amu ko wa awidi na nga tàmmal lisaanaka sa saw làmmeñ an taqula mooy wax xayran aw yiw fa xaala wax na salla yàlla na doole xéewal allahu yàlla alayhi ci moom wa sallama te mu musal ko moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne man kaana ku nekk yuminu di gëm billahi te yàlla wal yawmil axiri ak bis penc fal yaqul na ngay wax xayran aw yiw aw li yasmut te noppi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm bis penc gëm ne bis bu mujj ba dana am na ngay wax aw yiw te noppi waxaala wax na baadu shu'araa yi lenn ci waykat yi awit na nga tàmmal lisaanaka saw làmmiñ xawlal xayri wax aw yiw taxuz kon da nga xej ji bihi ca moom inna lisaana naka aw làmmiñ de yaataar dina tàmm li ma aw watta lan ko tàmmal dana na nga tàmmal saw làmmiñ wax aw yiw ndax wax aw yiw ci la aw làmmiñ ji amee ab xeej ji maanaam ci la aw làmmiñ ji tuufoo ci la aw làmmiñ ji amee aw yiw ci la nit ki di amee li nga xam ne mooy ngañaay waaye na nga fexe ba tàmmal ko lu baax ndax aw làmmiñ lépp loo xam ne moom nga ko tàmmal rek bu boobaa loolo lay tàmm fi kulli shay'in ci mépp mbir nag taataa nga yóotu maa sannanta la nga xam ne yoonal nga la ko ñeel ko fil xayri ci aw yiw wa sharri ak bon fansur na nga xool kay fa tasdaadu naka la yiw wa di dolli koo ware naka la bon nga di wàññi ko dana su fekkee ne da nga koo tàmmal loo xam ne du lu baax da nga koo tàmmal wax loo xam ne dëppoowut ak ay teggin na nga fexey ba dindi ko waaye su fekkee ne da nga koo tàmmal loo xam ne aw yiw la ak baax la na nga fexey di ko sax waaye na nga fexey di ko di ko yokku ngir ci loolu ci ngay amee ngañaay waaye ci ngay tanawoo ci ngay amee aw yiw kon aw làmmeñ nit ki mbokk yi war na koo fonk bu baax di fexey di ci wax aw yiw di ci fexey di ci wax loo xam ne dina ko jural njariñ ndax ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi fonkoon nañ ko lool bàyyi woon nañ ko xel lool waaye wattu woon nañ ko lool ngir xam danger bu rëy bi nga xam ne ci la mën a dugal doomu aadama bi ak li nga xam ne moom la mën a yóbbee nit ki rawatina jullit kon ñu ngi tuub bu baax tey jégglu di wax ne uriidu illa al-islaaha ma stata'tu wa ma tawfiiqi illa billah alayhi tawakkaltu rabbul arshil aziim wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh